conseil constitutionnel encore ma xamal ko sénégalais xamul. beureub até kay des contentieux électoral bu amé litige bu amé litige électoraux mon mën donc la gis euh, euh, euh, loi buñ conseil constitutionnel mu até ko. Hmm. nga ko dégg nga ñu nañ ko conseil constitutionnel mu até ko donc mm. tribunal la mm. ñu ko Le mm. tribunal lépp décision bu muy mënta am motiver juridiquement yoon wax li à travers des articles mais ñu ci conseil constitutionnel mu taxaw ne la diw cléom ñu ko ubi diw nañu dossier sans son mandataire diw mom sax ci bopam ci ak waa këram nekkuñu ci fichier électoral bi. Mm. loolu yëpp conseil constitutionnel la bàyyee ko diw nag taxaw ne la man mii candidat bokkuma ci fichier électoral bi ñii taxaw ne la waa Saint-Louis parrainage Saint-Louis nekkuñu ci fichier électoral. Mm. kon waa Saint-Louis am nañu problème nañu xam bu yeboo nañu xam ni que ñoom waa Saint-Louis ñu bëri duñu voté bu ñu xeexulee lii ñu bëri duñu voté parce que dañuy dem ci seen bureau de vote ñu ne leen yéen seen tour na ko fii. alors que nous, voté les dernières euh, élections. mais avant parlons du fichier parce que nous posé à travers. Euh, les chats et tant d'autres alors nous, euh, que le fichier logiciel franchement convaincant xam bi may fichier électoral bi je crois ñu fichier nga témoigner je crois même yow vous êtes les personnes les mieux placées pour témoigner ma ci sénégalais yi man le fichier électoral bi le logiciel développé mm. bo xamantene un conseil constitutionnel pour mm. tout donc les parrainages mm. bi koy attaqué ñu le report des élections am na ñu ma jiiñoon ni que man Arfan dama bëggoon pour ñu reporter élection yi man ne leen déedéet man li ma gis dina ñëw si kanam je crois on est en de récolter les fruits maintenant au niveau du conseil constitutionnel man lii laa doon wax dama doon ne tant que réglé wuñu lan lu nekk ci fichier électoral bi ak lu logiciel boobu ku dem ci élection bi da ngay sonal sa bopp. Hmm. man yàgg naa ko wax. Il y a un problème avec le fichier Donc, mm. effectivement j'ai un problème avec ce fichier électoral là je crois même j'ai été témoigné par la la Sénat il n'y a pas une mise à jour une mise à jour sur le fichier donc un fichier fichier c'est l'ancien fichier te sénégalais un dit que l'ancien fichier pourquoi ça alors que moi, un nombre un nombre pléthorique de mon votant, ñoo xamante dañoo bindu ji ren jii nii ci le fichier électoral pour mu mën pour ñu meuna am carte d'identité am fichier élect euh, carte d'électeur ngén ne ñooñu donc dañoo bind ni pour bind rek ci ay caaxaan donc ñooñu mënuñu voter fa lañ ko tek fa lañ ko tek xalé yi dem massivement di bind ji pour meuna voter ci élection présidentielle 2024 bi ñu ne ñom ñoom mënuñu voter parce que fiche ancien fiche électorale bi la yor bo ba légui mise à jour wuñu ko hmm. Vous imaginez ces choses-là, mm. à deux mois des élections, ou bien à, à, euh, à, un, euh, à un, mois, parce que janvier, là, un mois des élections. Nous, là, le fichier n'a pas été mis à jour. Fichier bon, pour élection. Donc, ça me donne encore raison. man encore une fois démb dégg naa ñu ne suñ ko joxee candidat yi avant dina am ñoo xam modifier ay parrainage. Euh, candidat modifier parrainage. ci système les candidats à la candidature. C'est une Fallou.

le fichier a été. non non vous modifié. pas, pas. Euh, euh, fichier fichier électoral fichier électoral là t'as pas compris personne ne peut modifier le fichier électoral parce que amul ci ban logiciel lañ ko liggéey dañ lay jox fichier électoral nga ubbi ko dafa ko modifier avant fichier bi suñ ko joxone see candidat à la candidature ñi wot parrain mané ne dina am ñoo xam ne dañ si sukkandiku di créer sen ay parrain di jël données nit ki créer ko signature yobbu c'est pas mais loolu après kan euh, kan euh, kan mo si mën dara kan mo né ki parrain lu la du non li nga yaakaar ni non lañuy joxé fichier électoral bi du noonu. léegi naka la nga koy joxee. li ma gis moy c'est ça la question allez-y demal. xam nga nit dina taxaw ci plateau di manipuler ay nit sans sans ñi rendre compte que diw c'est un manipulateur. Hmm. xam nga sa xel bu matchulé ci fichier électoral wala am matière électorale da ngay téy parce que Ousmane Sonko ces dossiers là ont révélé beaucoup de beaucoup de beaucoup de juristes sans pourtant l'être ay nit taxaw di wax droit ba danel alors que en réalité xamuñu dara ci lu la xamuñu sax lu mbedd bi di riir nit taxaw tay tey di la nan buñu joxone joxoon candidat yi fichier électoral bi day am ñukoy modifier bay créer seen seen propre parrainage demeewul noonu. c'est pas comme ça. nu mu fichier électoral dinañ ko jox ay nit ay nit la la wax. Hmm. nit yow Sen Fallo, par exemple man suma la joxee tey un document PDF eh, Bo xamante ma liggéey na si ba pare te ñu ne la logiciel bi ni mom, kese moo mën modifier le document PDF wala diw mënu ko modifier ma jox lako, ko lako. mais mënoo ko modifier mënoo ko modifier tu crois que tu es d'accord avec moi tu crois que le conseil constitutionnel wala la DAF peut donner un fichier comme ça

L'Union a ce ba liggéey. Mm-hmm. te fichier électoral kenn mënu ko modifier. mais loi bi daal li mu wax nee 15 jours avant les élections. voilà li fichier yi jox les candidats à la candidature boo weddee li ma lay ko ku fichier électoral Sénégal. donc Sénat monde nous modifier. donc Sénat sûrement dina ko modifier c' est pas l'exemple exemplaire Bob boobu bi nga yor da ngay dem ñu ubbi le fichier bi ne la yow da nga laal fichier bi un délit majeur que tu as fait dañ lay tëj fichier bi boo laalee virgule boo àndee say parrainage bu ñu dugalee fële dañuy xam ni laal nga fichier bi te n'est pas la personne euh, comme adresse, bu sanché laal fichier bi dañ lay tëj. da nga xamul sénégalais. Mané, dañ lay tëj la preuve en est que député yi ngay wax ni que dafa dafa falsifier def liste defar liste bokk boppam ay député tëjuñu ko. tamo groupe parlementaire. tëjuñu ko waaw c'est flagrant. yo xamné dañ lay japp c'est-à-dire que nga ko def ci ay caaxaan mu leer na ni que yo dañ lay tëj. maintenant si tu choisis que d'être emprisonné tu peux le faire. alors enfin man nga ko def.

yow munoo yow nekkoo député xamoo dara ñi ñi xam ñaata groupe parlementaire ñoo nekk au niveau de l'assemblée nationale yo nga créer sa propre groupe parlementaire lool dafa am. Ah. sénégalais loolu dafa mëna am sénégalais la hein? lool ngay wax ni encore une fois buñ ko joxé ay candidat candidat dem di modifier ay fichier électoral dañ ko mëna modifier. fichier électoral bi mëno ko modifier. parce que logiciel buñu jël développer ko yo yoro ko dañ lay jox un simple fichier li nga dem pour le serait que xam fichier électoral bi ñaata inscrit la ñaata votant la pour nga xam lolu nombre bi ngay xam mais mënoo ko modifier man li malay lay wax ni, xam-xam la lay wax ni waxuma la ci ay ñuy taxaw di manipuler sénégalais yi ñu wax sénégalais deug fichier électoral bi war nañ ko jox candidat yi wala ñu jox ko comment dirais les groupes parlementaires yo xamanté ñom dañoo am ay ay candidats nous, nous sommes ko ñooñu avons du sérieux député du modifier fiche électorale. Euh, c'est clair war nañu liggéey ci sens boobu pour ñooñu xam lan moo nekk ci fichier électoral. alors c'est clair enfin alors c'est clair donc mi ngi noonu chers téléspectateurs euh, par rapport à ce fichier exactement taxaw nañ suñu mu gën a yaatoo par rapport à wàllu wu mel alors dañuy ñëw la diaspora enfin euh, stratégie nga xam ni itam les candidats doucement Sonko ñu koy laal exactement alors comment la diaspora a pu sécuriser le second tour de Bassirou Diomaye Faye. <laughs> loolu mooy wane ne que encore une fois la diaspora sénégalaise je ne suis pas en train de. une politique non non non non non man diaspora <laughs> c'est pas aujourd'hui man émission man la diaspora surtout la diaspora sénégalaise mais le ne <laughs> tu sais pourquoi tu sais pourquoi non non non ah, pas ça non non non je suis pas avec Pastef je suis pas avec de mais je les intérêts des Sénégalais. je défends la République. parce que mhm. dama jàpp ni nawuñ ñun nakuñu ci ruwaayam donc bu fekkee nakuñu ci ruwaayam on se doit de défendre la République man ci loolu laa allez allez boo gisee may may njukkal boo gisee boo gisee boo gisee may njukkal la diaspora parce que wane nañu encore une fois ni que ils ont leur mot à dire. ci mhm. le fonctionnement de ce pays. Mhm. ñoom ñoom euh, ils ont leur mot à dire enfin day jaajëfal parce que ku jàpp euh, bi amul sa mot à dire dafa na dafa nax boppam. Euh, banque bi de la diaspora moom suñu fii rek internet la. mais banque bi ñu lay euh, nuyu bu baax a d'accord encore une fois banque bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. dama ne ku jàpp ni diaspora bi il la diaspora sénégalaise n'a pas son mot à dire dans le fonctionnement de ce pays da nga nax sa bopp. Hmm. da nga nax sa bopp mais ils ont des stratégies. ils ont des stratégies. parce que xam na ne diaspora mënut am doublon non non soyons sérieux. parce que mënut am doublon ma ne. man ci magistrature bi laa gis ni que respecté wu ñu la diaspora ci magistrature bi la gis ni respecté wu ñu magistrat euh, euh, la diaspora tu sais pourquoi. monsieur naka. diaspora sénégalaise bu ñu demee ba am ñaawu njort ñëw tabaski wala ñëw magal parce que dañuy jàpp ni que am na liste boo xamante ne ñu ngi koy bàyyi feneen ci benn bërëb ti que.

Euh, c'est notre institution. moi suñu au sérieux. Macky Sall euh, dara di dem. yow que c'est que nga déglu. Macky Sall institution je suis d'accord. Hmm. mais ñaata yoon ñoo tok un jour il se retrouve ñu photo ñuy jël ay photo ak Macky Sall pourquoi comme je te réponds à ta question je te réponds mag maa lay fekk foofu daaneel la ci li nga wax du da nga Macky Sall institution la ñaata nit ñoo taxaw fii def ay live Saga Macky Sall ba doyal un jour il se retrouve ñuy jël ay selfie ak Macky Sall Légui, réponds-moi réponds la diaspora qui te suit Yo, y'a ko wax loolu mooy singali nit jàpp ni que nit qui ci la boque, donc amul droit wax ci le président de la République toutefois bu waxee bu ñëwee Sénégal dañ koy tëj rap ci kasso bi alors que ay euh, comment euh, la femme là qui était à Dubaï la fille là tellement arrogante. Euh, hein? Fatouche. voilà taxaw na fii mm, mm, amul mm. lu muy yekkul suñu président de la république un jour il se retrouve selfie avec mom. Khaliphone sal. est passé par là Kenen ak kenen. taxaw ñu fi saga ba doyal même Fatou fatou Fatoumata Ndiaye foot Tampi bi ni taxaw fi amul lu mu yàq lu Macky Sall ba mu été en gee ba mu ñu dako ko fofu mu ñëw lakatu fi gaay fatu ko fi un jour il se retrouve avec ñom parce que saga na ko fi ba doyal ak keneen ak bo boo cité exemple bi do fi jógee tay ñooñu ngay wax ni que ñooñu ngay défendre yow. non ngay de man je ne défends personne dama ne. sénégalais sénégalais yépp sénégalais yépp ñoo ci ah, bokk ah. yem on on se doit de défendre doomu sénégalais yi ak fépp fu ñu mënta doon fu ñuy bàyyee ko l'état du Sénégal war na protéger ses ses ses ses enfants ses citoyens les américains tooñal fi doom américain nga tëj ko kaso léegi ñu intervenir Juan Branco tëjuñu ko fii bàyyi ko le lendemain mu ñibi tu sais pourquoi xam nga lu tax ñu bàyyi ko la France a intervenu parce que seen doomu la tey demal bitim réew ñaata sénégalais la ñuy tëj foofu tout récemment Rayna, nañu benn sénégalais aux États-Unis ci ko xamante ne jël na yoonu Nicaragua bi nit ñëw auto ubi vitram tiré ko ray ko gis nga dégg nga état du Sénégal mu communiquer ci est-ce que dégg nga état du Sénégal mu communiquer ci yow laay poser question bi dégg nga état du Sénégal mu communiquer ci lolu le fait que ils ont tué un sénégalais. Fofu? So yalla duma ma pourtant c'est un citoyen sénégalais. du ma tout de. tontu de. ah. Est-ce qu'ils ont communiqué si le Sénégalais qu'ils ont tiré aux États-Unis Non, non. Est-ce que l'État du Sénégal protège ses, enfants qui sont à l'extérieur Les citoyens sénégalais qui, sont à l'extérieur, est-ce que l'État du Sénégal les protège Mais non Si États-Unis les américains intervenir Sénégal ça buy am trouble ça. États-Unis sen sen ambassade bi def communiquer ki sen doom yi nekk fii ñu toog leen seen kër bu leen dem fen lolu moy protéger sa sa citoyen yi réew jox ko gëdd fulal ko valoriser ko valoriser ko moo encore une fois mané la la diaspora sénégalais nga ci galama, parce que ñun xam nañu lu ñuy daj fele ci bitim rew pour que ay famille ay junni ay junni ak famille ay famille nak Sénégal ñu mën ne serait-ce que. mais quand même mën a dund. mën mais quand même ils ont montré que ni ñoom ba tey. ils ont leur mot à dire dans l'économie de ce pays un ils ont leur mot à dire dans le fonctionnement de ce pays. ku japp ni que diaspora bi dañ ko exclure ci le fonctionnement de ce pays wala ci économie Sénégal da nga nax sa bop diaspora bi ils ont leur mot à dire même toujours même élection qui vote ils ont leur mot à dire la diaspora que vous voyez là encore une fois le cas de Bassirou Diomaye Faye une autre leçon qui vient s'ajouter à que nous, nous donnons de diaspora bi encore une fois ni que ils peuvent imposer leur rythme la diaspora Voyez l'exemple de Bassirou Diomaye Faye ni que ils peuvent imposer leur rythme et mm. ils ont leur mot à dire mm. dans les la présidentielle à venir est-ce que vous avez un double doublon ci la diaspora mais il n'y a pas de doublon. Mais stratégie passive tech, franchement. Est-ce que les gens ont imaginé d'aller recueillir la, la voix de la diaspora comme parrainage Seul Pastef, nous a une idée bobo. Et l'idée bobo, je crois, ça a payé. Chaque fois, il y a une stratégie encore une fois nee naa la. ñooñu waxee wuñu ko toogee wuñu ko. musuñu ko wax fekk ngeen yëgu ko exactement. musu ko yëg bu ñu ko yëgoon ñu koj leen foofu. bu ñu koy yëgoon koj leen fofu heureusement dañu xaar bu au dernier moment ñu andi leen ño xamanteni ne je crois ça man j'aurais eh, de voir la tête de Mamadou euh, comment dirais-je Badio Camara. Ah. j'aurais imaginé voir la tête de Mamadou Badio Camara ben ñi andel euh, comment dire le parrainage de la diaspora là il est dans l'obligation comment, comment il va regarder le monsieur qui Mohamed comment il s'appelle le mandataire de Bassi Amadouba Amadouba j'aurais imaginé euh, euh, Badio Kamara Akay Nyonyam le gars quand il a amené le, euh, comment dire, le parrainage de la diaspora j'aurais imaginé nyonyo lan lañ lan lañ koy xolé mais le gars là franchement tu es stratège hein? yow fël la nga ñu fo xamantene ñun xaaruñu ko woon ah. eh ben. kon c'est vrai que luñ doon wax ci ginnaax. c'est une réalité ni da fay bëri ay pax. kon kon réalité la wàllu. Ah, en fait Sonko sera euh, hein? Sonko c'est Sonko. lolu moy wane que ne Sonko moom il les a dépassé stratégiquement. Hmm. ñoom ils n'ont que largement de la force. waaye policier barricade 55 jours policier barricade, ay services publics ils n'ont que cet argument là. Hmm. mais amuñu stratégie waa chaque jour mu jommal chaque jour mu jaaxal même en étant en prison il impose son rythme Serigne Fallou man su ma nekkoon njiiti réew mi wala suma ma nekkoon kilifa bu mag fi ci réew mi dinaa jël mes gardes Dina jël mes mes précautions Dina jël ma responsabilité en deux mains parce que suma ma c'est nit ku nek ci prison continuer quand même de jommal man je vais me je vais croiser les bras et interroger mais le gars là comment il fait toutes ces choses là en étant en prison, mais il nous impose quand même son rythme. Hmm. Il nous impose son rythme.